dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi nga xamante ni moom la ñu xeendo askanu Sénégal ñëpp daat na ñuy xam ne woppi coronavirus daat nay salfaañ réew mi te nag ni nga xamante ni moom la ci ënde ay taggatémbe daal dinay metti loola maanaam foo la rek dafay metti mën nañu ko tuddee sax feebaru màggat yéenekaay gi di réew mi quotidien moom mu xëy di ñu xamal lan ñu weeru juin nag yaakaar ci boppam mën naa juddu te ñu bëri sax daat nañu si am yaakaar ndax dakkal li nga xamante ni mooy état d'urgence bi ak nag ubbi li nga xamante ni mooy école yi élèves yi dem di jàngi ak dikk ubbi li nga xam ne mooy frontières yi yéen a kaay groupe promo consulting bi mu ñu xamal ñu professeur Didier Raoult bu Marseille moom nag daal nay wax ne jàngoroy coronavirus ji yàggatul dara dina daal di jël ay bagaasam maanaam ay kalma njàngaanam daal di dem yéen a kaay gii di réew ko di jaay mu ñu xamal naa ñu daal en tout cas yaakaar man naa daal di juddu ci weeru juin wi nga xam ne moom la ñu daal di dëgmal Assane Samb nag warul tax ñu daal di bàyyeeku ndax jamono ji sax nemmeeku nañ ne mbirum wàllaate bi ma ngi gën di law yéen kaay gii du l'observateur mu ñu xamal na ñu li amba ba des dal li ñu nemmeeku mooy woppi coronavirus ji moom ma ngi def li muy def te nag boolewu ci wax ju bari ndax nag lu toll ci benn fan rek 24 heures daat nay rey ñaari nit ci Sénégal kenn ki Médina la dëkk kenn ki Dakar Plateau yéen kaay gii du Sud Quotidien mu ñu xamal na ñu woppi coronavirus moom na fu mu jaar rek bàyyi fa ay trace dafa njaaxuma ndax nag yi jamono ji ji ñoo ngi ci ay jafe-jafe yu métte métti sagar ma ngay xeeña ci force covid 19 bi bi nga xamante ni lu toll ci trente membre la la nga xam ne nag moo fa indi ak picco ak mbaalo ci réunion bu njëkk bi nga xamante ni waa force covid 19 def nañu ko dañ ne nag dañuy génnee xaalis boo xamante ni dana toll ci cent sept millions ngir nag séddale ko trente personnes yi mu nekk seen pér jëma kenn ku nekk am lu toll si ñett ci ay millions yu fekk juróomi téeméeri junni maanaam di fay ñi nga xamante ni daal maanaam ñooy membre yi nekk ci force covid 19 loolee la ñu bëggoon a amal ci seen réunion bu njëkk moo tax mbir ma nag safoon na sàpp tàng jër ndax ki nga xam ne mooy ministre Habib si ak Toussaint Manga ñoom ñoo lànk kandaare na duñu nangu benn yoon ñu leen di jox ay pér jëma ndax nag ñoom nee nañu lan mooy nday loolu ak jamono ji askan wi ni ñu sonneeg jafe-jafe yu ñu nekkee ci réew mi duñu nangu benn yoon ñu ñuy fay yéen kaay gi mu ñu xamal nañu en tout cas force covid bi daal maanaam coow commencé na faa dugg sagar nag ma nga fay daal di xeeñaa am na nag ay sénégalais yoo xamante ni njuur tojul seen bopp ndax dafa am benn chauffeur boo xamante ni moom ak benn commerçant dañoo jugee woon Touba doon fëkk li nga xamante ni mooy état d'urgence bi doon ñëw Dakar ñooñee nag ñu daal leen di teg loxo tëj nañ leen lu toll si ñaari weeri kaso ma ngi ci réew mi quotidien yéen kaay gii de la turbine mu ñu xamal laan ñu jàngoro ji ma ngi gën di law ñi nga xamante ni maanaam quarantaine nañ leen ci dakaar ber leen toll nañ si juróomi téeméer ci ay nit soo moytuwulee nag université si Anta Diop bu Ndakaaru la ñuy jël nettoyé ko bale ko nag ba mu set wecci lalaat lal yi nag di fa fa ñi nga xamante ni maanaam ñoom la dañuy quarantaine journal bii di enquête ñu fekk fa docteur Aliou Blondé Diop moom nag la mu xamle nee na nag askan wi dañu leen a war a waajal ngir nag ñuy dund ak jàngoro ji nga xamante ni mooy woppi coronavirus ci la témoin ñu fekk fa docteur Serigne Chérif Fall moom nag la mu xamle moom tim daat nay wax ne askanu Sénégal dañu leen a war a tàggat maanaam tàggat askan wi maanaam ana nan la ñuy dundee ak virus bii di coronavirus comme ni nga xam ne moom lañ ko defee ak siburu maanaam paludisme yéen a kaay groupe promo bi ñu fekk fa professeur Seydi moom nag jamono ji parewul benn yoon ngir nag jël li nga xamante ni mooy artemisia di si faj ñi nga xam ne ñoo amee woppi coronavirus moom professeur ci réew mi quotidien daan mbir mi nag jar naa teeya yéen kaay gii de la témoin mu ñu xamal naa ñu covid 19 bi daal am na doole waaye nag bëri na ay sañ-sañ ndax nag armée bi ñoom dañoo waroon a recruter ay soldats bàyyi nañ ko nag bo covid 19 bi daal di jàll yéen kaay gii de les échos dikk nag ci contrat bi nga xamante ni moo dox diggante Senelec ak Akilee te Makhtar Cissé signé woon ko journal bi nag njort na ak léexóor ki njaaxuma ak tojange daf caa daa di am moo tax nag daat nañuy saisir ñi nga xam ne ñooy waa ARMP ak waa OFNAC ak waa inspection général d'État ak cour des comptes ngir nag ñu ñëw Senelec càmbara contrat bi nga xam ne moo dox diggante Senelec ak Akilee yéen kaay gii di Dakar Times moom nag dafa xëy di laaj ne Makhtar Cissé ana kan moo koy arrêté lii nga xamante ni nag mooy ab contrat te mu signé ko diggante Akilee ak Senelec daat nañ doy waar genn xeetu doy waar goo xamante ni Makhtar Cissé nag dafa war a rendre compte yéen gii di Vox xëy nag di ñu nettali loo ni lu doy waar la lu tiis la ca diiwaanu Touba dafa am benn soxna boo xamante ni Maymuna Jàllo la tudd moom nag da doon xuloo ak borom kërama bi ñu xuloo ba noppi boroom këram jël ak sijaadaam lal ku di julli moom nag mu daa dem tàngal diw ba mu tàng daa di ko koy sotti jëkkër ji jamono ji ma ngi ci diggante dund ak dee moom may Maymuna nag ma ngi ci loxol yoona yéen kaay gi di record moom mu xëy di ñu xamal naa ni waa Liverpool ñoom nag dañoo bëgg Kalidou Koulibaly waaye nag waa Naples daat na ñuy wax lu leer ñoom la ñu xamle daal bu ñu amul 69 milliards Diawara seen xel moom bu mu nekk ci Kalidou Koulibaly yéenekaay gi du sunu lamb mu ñu xamal lan ñu ay weer a ngi nii Boy Niang 2 ma ngi cokkaas ki nga xamante ni mooy Balla Gaye numéro 2 yéenekaay gi du sunu lamb ne est-ce que nag Boy Niang warul def ndànk ndax gis nañ ne Modou Lo bi mu fi nekk di njaay cekkee Balla Gaye 2 Balla Gaye daf koo jàpp defal ko affaire ki nga xam ne mooy Tapha Tine moom mu nekkoon na fi di kaañoo Balla Gaye numéro 2 ba mu ko jàppee daf koo defal bagage est-ce que nag ki nga xamante ni mooy Boy Niang 2 dëkkee di njaay cekkee Balla Gaye 2 bis bu combat bi taxawee kaaraange ci mooma yéen a kaay gi di sunu làmm moo xëy di si samp ab laajca